yegsi ak jàmm ci xibaar yi gën a fës ñu koy dooree ak ki nga xamante ne bi moom moo di di Freezy di rappeur bi nga xamante ni bi moomee euh, xamee nañ ko ci rap Galsen mu nekk ki nga xamante ni bi moom di yi nekk na euh, rappeuse bi nga xamante ne bi saa su nekk rek ñu ngi koy ràññee ci ay spectacle yu neex ci kaw seen waaye tamit nag ci colin boo xamante ne bi colin bu doy waar la ba tax na ku ne xam ne ne fête de la musique bi passé la mu coloon def benn coow bu viral ci li nga xam ne moom moo di internet bi moom Dee Freeze mi nga xamante ne bi rappeuse sénégalaise la tax nag daa di sol li nga xamante ne bi tey moom moo lëmbee li nga xamante ne moom moo di àdduna sax ba euh, ki nga xamante ne moom moo di Mame Matar Gueye euh, Jamra di si def benn plainte ci biir loolu nag moom mee nga xamante ne moom moo di di frise euh, ci la defee ab jéggalu bu baax a baax posté ko ci yenn page am lu ci mel ni Facebook ak Instagram ak TikTok yi di jéggalu ki nga xamante ni moom moo di Mame Matar Gueye ci biir loolu sax gis nañ ne dem na fa ba ne ko man kat yaay sama papa yaay sama lépp peut-être ndaw laa dama tegul woon ci yoon rek ngeen teg ma ci yoon yoon di jéggaluwaat nag ñëpp euh, sénégalais yi waaye tamit nag di wax ne moom artiste la rek nag waaye bu beneen yoonatee dina xool ni nga xamante ni moom la war a euh, doxalee waaye tamit nag ni nga xamante ne noonu la war a euh, solee mbokki internet yi ki nga xamante ne moom moo di Dee Freezy yi nga ne bi moo lëmbe woon internet bi fan yi yëpp moom dem na ci ki nga xamante ne moom moo di Mame Matar Gueye Jamra ba daal di koy jox ak njëbalam ci li nga xamante ne bi moom la soloon ca sol gu ñaaw googee nga xamante ni moom moo defoon viral ci internet bi waaye tamit nag nekk ci réseaux sociaux yi mbokki internet yi mi ngi noonu di leen joxoon information boobu noonu rek di leen wax ne saa su nekk seen mbégte rek suñu bànneex la ni ngeen ko bëggee lañ koy defee ak yéen jërë ngeen jëf mbokki internet yi l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wóor